dama daf wax ni ma sëriñ bi. daf maa wax ni ma sëriñ bi. dama lay jox oto. dama lay jox oto. jamono yi paase. jamono yi paase. mu jox ma kàttan bu mag. ni ma moom nga yóbbu xombal. muy kàttan bu bu bees tàq. ma départ ak moom. mu départ ak moom. ndeke. ndeke. am défaut technique. dafa am défaut technique. mu dem jënd beneen bu ko gën a bees. mu dem jënd bu ko gën a bees. bu ko gën a nouveau. bu gën a nouveau. gën koo cher. gën koo cher. ni ma bii nga yóbbu ci daara ji tey. ci ziyaaru daara ji. boo génnee 4-4 boo génnee 4-4 bu weex bi. bu mag a mag bu mag a mag a mag bi. moom la ma tegal foofu. ni ma ni ma. su ma nekkul woon ci àll bi. su ma nekkul woon ci àll bi. Chine. Chine foo teg sa tànk ma teg ko fa. alaaj as ndaw alxaaji as ndaw ndukumaan borom borom original original original original ak neex ak yudul ñom ak yudul ñom ñoom mom mom mom as mom. njabootu Serigne Mansour di dofu Serigne Mansour teranga bo xalat def nako ci bis bi alxaaji Abdoulaye Ndiaye Ngalgu alxaaji Abdoulaye Ndiaye Ngalgu moom nag doomu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour la. baayam ma. baayam. ak Serigne Mansour. ak Serigne Mansour. ki mu ko tuddee. ki sëñ Mansour. xombal la ko sëñ yóbbu woon. mu yaroo fa. mu yaroo fa. yóbbu na ko Màkk. Ablaye yóbbu na ko Màkk. teraanga bu na ko fii. ak ñeneen ak yeneen i nit ñoo xam ne kenn mën leen lim. Ablaye Sàmb ak fa tabarakallah kër Baay Alxaaj Jom Mansour ñoom Baay Matar Loog moom daal ñëpp rek kenn manqué wul ñëpp def nañ yal na yàlla fay ñëpp yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla sàmm ñu def ñaan te daw dem ca barab ba nag bala muy gën a guddi ndax si sam papa na wax ni bu ñu ne asamaan si neexul mu ni asamaan si xanaa ci yéen la neexul waaye baykat yi moom asamaan si neex na ci ñoom de <laughs> alaaj Mansour Fall cañal de am déet ankay <laughs> alaaj Mansour alxaaji cañal de ñëw nañ moom daal soppe yi kenn manqué wul yal nañu yàlla fayal maam El Hadj Malick waaye Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour yàlla nañ ko yàlla fayal kooku kenn du moom jàmbaar dëgg ngi noonu jàmbaar dëgg la woon lu mu am daf ko fee xaar te masta yàkkamti dara masul xëccoo dara masul wuti dara masul bëgg dara masul laaj dara ñor tab bi Cheikh Seydou Mouhamed Mansour lépp lépp dafa ñor tab fekk si ko yii gaa yi di wax yëpp di ko coowee yëpp ba ko yéem sax moom yooyu masu koo yéem loo ko wax rek mu ni sëñ Babacar lu coow li bare bare mu ni sante ko samaam rek sëñ Babacar rek ak alaaji Maalik àll bi rek yàlla ko yàlla fay maa ngi sant itam sëñ bi ne maa ngi sant itam alxaaji Maxtaar Siise alxaaji bu jamaatu nuur ak sunni biñu jappé jàppee ziar daara ji. ba commencé di ci dox mo def alalam ci ziar daara ji. ba paré yamu ca. ba pare yamu ca. ñima li nak sama bop sama liggéey sama lu jël def ko ci Cheikh Seydi mohammed Mansour. ñu koy ñaanal ñu yàlla na ko yàlla jàppale. moom de waxul ziar bi. waaye sag bi mu sagal waaye bi mu sagal. boppam. sagale ko xadara bi. sagale ko xalifa bi. ci jumaa ji bu ca yamoon rek léppam dox. yàlla na ko yàlla taxaw. Maxtaar Siise nit ku baax. Maxtaar Siise. déedéet du woon hasard rek. mag ñi. di ko tànn. bu demee ba xalifa bi tànn bu demee ba xalifa bi tànn. dénk ko lii dénk ko lii liggéey bu rëy bii. xam ko xam jikkoom moo tax. waaye mu taxaw ci waaye nag mu taxaw ci. ak fulla ak fulla ak fit ak fayda ak jom ak bëgg ndamal kër Seydil Hadji Malick ni ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla alxaaji demb Diop si job si job si wax dëgg wax def ci kër baayam Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour gii di ko def ci mamam Seydi El Hadji Malick kenn xamul nu mu toll ñu ngi sant itam ñu ngi sant itam alxaaji moor di doomu sëriñ Mansour keroog gaa yi dañuy wax. keroog yi dañuy wax. mu ni sax mu ni ma sas ma. ma ne ko sa bisu baay. du ma la ci sas sasal sa bopp. bi gaa yi ñëwee. bi yi ñëwee. mu ni 2 millions baax gaa yi ni ko baax na kay gaa yi ni ko baax na kay. mu ni yóbbu leen lu manqué ngeen woom. Mor Seck itam moom itam. ñu ngi leen di sant kay sant nañ ñëpp baarakallah maa ngi leen di wax benn message. maa ngi leen di wax benn message. jamono yee paase. jamono yee ngi ci doon liggéey. ñu ngi dafa am bés boo bu ñuy waaj boo xam ni. dañu ko jagleel maam Seydi Hadj. dañu ko jagleel kenn rek te mooy maam Seydil Hadj Malick. ñu koy tuddee weekend Seydil Hadj Malick. weekend culturel. weekend culturel. diggante Sénégal. ak Europe. ak Europe. bu bu Sénégal. dinañu wër ci yéen ñëpp que dañoo bëgg ndax dañoo bëgg bu bés bi jotee. niroo yi benn lay. niroo yi li sol benn lay doon. góor ak jigéen ñoo koy ndiroole muy benn couleur muy benn lépp di Seydil Hadji Malick. ñu tudde ko Kër Maodo. kon nag ngeen waaj te bàyyi ko xel. ak ay rakam Seydil Hadji Malick Maodo. Sering Babacar Abdoul Aziz yalla na guddal sen fan ba ci sëriñ Mansour Dabakh suñu wayjur wi suñu mag ju bax ji di sëriñ Cheikh yalla na yalla guddal fanam te yalla yok wiram way ñun kat ñi lañ am nak te ñoy suñu sak buñu leen rek doyna yàlla nañ leen yàgg gis jumaa ji yàlla nañu ànd ak moom ubbi ko ci jàmm ñépp fekk ko réew mi yàlla bu fi bal tàkk yàlla bu fi yaakaar tas suñu mbokk ma ca Amérique di suñu xarit di suñu soppe di kenn ci ñun nga xam lu ñu nekk mo ci man mo ci gën muy Haaruna rashid Ñang taxawayam ci kër mamam gi yalla nako ko fay wax deug yalla dal dal ku tudd ak ku ñu tuddul ku ñu fàtte sax ku ñu fàttewul alxaaji libaas jóob dembaka fa ñep ñom ñep def nañ ci alxaaji Abdoulaye Dia alxaaji Abdoulaye Dia alxaaji Moustapha yooyu ñoom itam kenn ku ne loo def nga ko di sant ñëpp nag tàllal leen bu leen fàtte li ma ñaanoon de آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين,